bismillahi irrahmani irrahim kon jataay bi benn jataay la rek waaye dañoo tàqatle audio yi ndax ragal mu gudd li passé ñoo ci waxtaane kii di abdullahi ibnu wahab lii di ñëw nag jataay bi ñoo ciy waxtaane abdurahman ibni alqasim ibni xaalid nga xamante ni bii mooy kàngamu ngeeru imam malik kenn mënta tudd ngeer mi tamit te waxoo ibn al qasim rawatina fii di afrique rawatina dongo yi ñëw ci gannaawam ak fañ ko teg kon ibn al qasim moo di aalimu diyaari al misriya wa muftiha imaamu dahabi noonu la ko waxee nee na égypte seen borom xam-xam a ngoog de kooku mooy borom xam-xam ba dëkk ca égypte mooy seen mufti ki leen di ubbee ci diine kii def fatwa mu continue mu ni wa kaana daa maalin wa dunya nee na moom ibnul qasim day suñu borom yàlla joxoon na ko alal seddi woon na ko tamit lii di àdduna fa anfaqaha fil ilmi nee na mu dépensé loola lépp ci xam-xam sàkku xam-xam wuti xam-xam taatani xam-xam dëddu àdduna ak alal ja dëgg mal xam-xam kooku mooy abdurahman ibn al qasim nga xamante ni bii cosaanam moo di Sham fi nga xamante ni bii moo di Syrie ñii ni Filistin Palestine fi ñuy wax Palestine léegi foofu la gane àdduna dëkk bu ñuy wax Ramallah comme nuñ koy waxee ñoom léegi te yiteere ñu ko tudde ar Ramla moom nag Égypte lu mujjee dëkk foofu moo nekk réew mi nga xamante ne bii foofu la mujjee dundee ba foofu foofu la faatoo foofu lañ ko denc laaj nan imam malik diggante ñaari ndongoom yi di ibnu wahb kan njëkk a waxtaane sànq ki doon waxtaane sànq ak ibnul qasim ñoom ñaar bu leen di tappal ay médaille ku nekk ban médaille la la tappal ku nekk ban casquette la la jox ñu déglu imam malik mu ne ibnu wax bu day aalim boroom xam-xam la de boroom xam-xam la de ndax jotaay wala passé ñu waxtaane ci ibnu wax bu waxoon nañ ne imam malik jële na ci moom masala riwaaya ci moom xadiis kon kooku imam malik werantewul bar ak xam-xamam ak jekkoom lii di xam-xam nee na waaye nag ibnu qasim faqih boo dee fiq rek nga bëgg nee na ah ibnul qasim nag moom kooku mooy faqih bi kooku mooy ki dégg ci diine kii di imaam ashab bokk ci ndongay imaam malik nga xamante ni bi ci école bi la bokk bokk ci ñi siiw lool sax nag nee na ibnul qasim daal ak ibnu wahb soo bëggee xam seen différence ci fiq déglul ma wax la nee na boo daggoon tànkob ibnul qasim dem gam-gam leekook ibnu wahbin da nga fekk ibnul qasim tànk ba sax moo gën a dégg fekk ibnu wahb wax jooju nag mel na ni xaw naa metti la gën a yomb rek mooy ñu jàpp ci la imam malik wax te wax ni kii di ibnu wahbin boroom xam-xam la ibnul qasim faqih la ku dégg diine waaye ñun niti jamono luñ ciy déggee ñun mooy ñaar ñëpp ay kàngam lañ nag ñaar ñëpp ay boroomi xam-xam ñaar ñëpp ci fuqahaa yi lañ bokk cey su leen suñu jamono amoon ñu wax leen cheikhul islaam wax leen faqihul milla waaw waaw ñoom day ñooy kàngam yi ñooy ponkal yi moo tax sax boo demee ci imam dahabi genre kàddu yi mel noonu da koy utiliser ak ñi mel nii kon ñoom jamono ja doon dund moo tax rek ñuy wax loolu waaye ñii ku leen andiwoon ci suñu jamono ji téeméeri loxo lañ leen di jàppee ndax lañ gàddu ci xam-xam ku ci nekk mat nga sëkk mat nga sëkk la nga doon ci xam-xam imaam an-Nasaa'i nee na lii di Muwatta imaam Malik daal ñi ko riwaaya nee na kenn gën cee baax la Ibnul Qaasim riwaayam baax na de te wér te set tam wattu ko nag waaye nee na boo demee ci ñii di ndongoy imaam Malik daal man kenn gënaluma ci Ibnul Qaasim imaam Nasaay moo wax loolu de te imaam Nasaay ñëpp xam nañ ko ci mbirum hadis nga xamante ni bii balaa muy wax diw ku baax la diw ku ñu jël ci moom xam-xam la ah dana ko seetaat de du ko wax noonu di ko maye de fu mu koy waxee rek xamal ni kooka ku ko yeyoo la léeg-léeg nga yeyoo ko sax te du la ko jox nag alqaadi Iyaad nee na dikru ibtidaai talabi nee na bunt bi li mu fiy jàngale moo di kii di al imaam ibn al qasim naka la def ba jàng xam-xam fan la jaar ay jaar-jaaram ci jàng xam-xam xam nga loolu dafa am solo nit ki di ko xam ñoom ak xam-xam am na solo nit ki di ko ubbi di ca yër Suxnuun moo ngi net li nee na ibn al qasim moo wax ni maa xarajtu ila malikin ila illa wa ana aalimun bi qawli nee na man day laxasuma génn ma da jàngi jëm ca imam malik lu dul ne fekk na xam naa ay waxam xam naa am bindam jàng naa ay téeréem kooku moo di ibnul qasim kon ibnul qasim lan lay wuti midin comme que xam na téere imam malik jàng na ko xami waxam lu mu fay wuti jar na laaj de loolu dafa nekk loo xam ni suñ jamono ji daanaka commencé ne di tumuranke te moo di lan dem tukki ci borom xam-xam ngir jël ca moom la téere ya dul bind am na de am na loo xam ne borom xam-xam am na ko léeg-léeg téere du ko bind moo tax imaam Malik bañ ko yebalee ni ko jàngil luñ ko wax demal ca rabia fata ad fataallam min adabi qabla ilmi jëlal ca yar yaag teggin ga ibnul barak nee na jàng naa lii di ab yar fanweeri at door a jàngi xam-xam ñaar fukki at kon loola la ñuy wuti ci borom xam-xam ñoom donte xam-xam ba ca la bokk nag waaye yi nga xamante ni bii doo ko gis ci téere ak mu leen di ñor kon loolu bokk na ci li tax ñoom ñu daan tukki tukki yu metti di dem ci borom xam-xam yu mag a mag te sori lool fañ dëkk ñoom ibnul qasim nag yàlla may na ko loo xam ni ku jàng tarjama lii di ndongay imam malik da nga yéemu ibnul qasim nu ko suñ borom yàlla berale loxo jataay yi passé waxoon nañ ni am na ñu daan ñëw ci imam malik di ko wax ni beral ñu jataay mu ni mukk wutal ma darsu boo xam ne menn man la mun mukk fexeel ba jagleel ma ci journée bi loo xam ni danaa man di beroog yow mu ni mukk yooyu yëpp imam malik daw ko nangu ndax ibnul qasim moom amu ko woon ah kay fexewoon na ba am ko fexewoon na ba am ci imam malik waxtu woo xam ni dana fexe ba wéet ak moom laaj ko ay masail laaj ko ci diina ay laaj bind ko wattu ko te ibnul qasim ca pastéef ga ak farlu ga ca bëgg ga xam-xam ibnul qasim nee na man de daana dem ci imam malik di fa wuti xam-xam di ko laaji ay laaj yoo xam ne ci diina la jëm ban heure nga daan dem mu ni njël gu njëkk njël gu njëkk mu fëkk ay dàllam gàddu yi bagaasam dem ca buntu këru imam malik ca sedd ba ca lëndam kurs ga di toog fa di ko xaar toog fa di ko xaar nee na bu génnee rek ma laaj ko benn masala ñaar ñett ba ñeent laata mu yegg jàkk ja doy loo loolu nag saa yu génnee dem ca piliyaan ba fa muy jàngalee ca jataay ba ëttu jàngu ba ma ñëw toog ànd ak gaañi cay ibnul qasim xam-xam ñoroon na ko de lool moom génnul sax lu dul sàkku ji xam-xam kese génn lu dul dem taqoog imam malik moo tax ibnu wahb kàngam moom nga xamante ni bii moom lañ koy tëkkaleel ci ngéeru imam malik seede na ci moom seede boo xam ne ku déglu li xam ni ah seede boobu mooy dëgg nee na boo leen bëggee fiq boo leen bëggee waxi imam malik waaye dem leen ci ibnul qasim ndax ibnul qasim day moom imam malik rek mooy sëriñam man nag sama genre gi moom dañoo bari sëriñ xam nga jotaay bale waxoon na ne am na ñetti téeméeri sëriñ ak juróom benn fukk moom moom moom ibnu wahab waaye ibnul qasim moom imam malik rek daanaka ci la yem ñim ci ñim ci ñim ci boole bariwut imam malik daal moo nekkoon soxlaam mu yem ca ibnul qasim nee na nag fajar googu su ma doon ñëw damay fekk ni imam malik moo ngi nekk ci jàmmam kontaan fireeku su ko defee ma mën a taatan ci moom xam-xam bokk na ci waxam yi am njëriñi moom ibnul qasim nee na maa danna ahadun bil ilmi fa aflax nee na ku nay ci xam-xam doo ca jariñu xam-xam ku ko bëggul a tasaare nee na doo ca jariñu de ibnul qasim waxam jooju nu mu koy tekkee nuñ koy déggee mu ni ndaxte man de bu ma masaan dem ci jitaayu imam malik sama moroom yi ñu am ngànt ñëwuñu damay bind na ma daan bindee buñ ñëwee buñ ma laajee ma wax leen lépp lu imam malik waxoon démb nee na waaye man saye ma ngànt dabee ba ma ñëw di leen laaj imam malik lu mu jàngale woon démb nee na ñoom ñëpp dañuy bañ cey ñëpp dañuy bañ waaye gis nga suñ borom yàlla lam lam leen fayee ibnul qasim ma daan joxe xam-xam ba góos ak droite dajoor ak càmmeñ mi ngi nii ñëpp di ko dégg àdduna ak penkook saw ñëpp xam nañ ko tey waaye ñooña doon nayee joxe xam-xam ànd nañu seen xam-xam dem xabru kenn déggu leen kenn xamu leen moo tax loolu dafay dëggal la abu ishaq al ilbiri waxoon ca qasidaam ga mu ni xam-xam daala ngoog yaziidu bi kathrati l infaaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta nee na xam-xam mooy loo xam ni loo gën a joxe mu gën a bari boo ko téyee ñàkk ko xam-xam booy financé di joxe di génne nee na day gën di bari rek nee na waaye boo ko jéemee téye ñàkk ko moo ngi mel ni ndox ku yor ndox ci sab loxo boo nga bee tamit amoo dara day dem bàyyi la fa rek waaye xam-xam moom boo ko joxee mu bari kii di ibnul qasim nag rahimahullahu taala nee na jege nguur ak niti àdduna yi amul njariñ de nee na loolu amul njariñ loolu lu tax mu wax ko ca njaal benn dundam daf doon jige ñooñu di jaxasoog ñoom waaye ba mu demee ba jàngi xam-xam jaxasoog waa xam-xam bàyyi fee waa àdduna tuuti ba mu jógee lu mu wax kàddu gu rëy nee na daal jige nguur ak nguuram amul njariñ jullit bi na koy moytu ndax ñoom lañ bëgg rek mooy jël sa diine ji siime ko seen àdduna ji dem seen yoon cey loolu loolu nag ibnu qasim waxu ko waaye man maa ko waxee noonu ibnul qasim moom la mu wax mooy jige buur ak nguur amul njariñ loolu rek fa la wax jeyem ma wax ne ñoom de dañuy jël seen sa diine ji siima ko seen àdduna dem seen yoon loolu nag am nañu bari ñu ko waxee noonu ibnul qasim kan la génn àdduna mu ngi génn àdduna ci Égypte guddi àjjuma ci juróom-ñeenti fan ci weeru safar 191 wala 192 ci gàddaay gi ci gàddaay gi amee te téeméer at ak juróom-ñeent fukk ak benn wala juróom-ñeent fukk ak ñaar ginnaaw bu mu demoon Màkka ñibbisi ba mu ñibbisee nag ñetti fan la def ca Égypte dal di faatu génn àdduna amoon na juróom benn fukki at moom Ibnul Qasim kon xam naa dañuy delloo loolu ba jotaay bi di ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah